tey nag moo nekk le 14 novembre donc jour tant attendu état bi ak Ndofène donc match bi nga xamante ni moom la ñu war a jonganteel ak ñi nga xamante ni moom mooy Burkina Faso euh, fële euh, ca Mali Bamako gis ngeen ni que nag suñu gaynde yi euh, déjà nekk nañ fa depuis démb demb sax ki nga xamante ni moom mooy Pape Thiaw nekk entraîneur sénégalais yi daal di nañ fa doon amal sax benn point de presse mu doon wax ni que ne nag match bi nag du yomb parce que euh, bien vrai ni que ñaari équipe yëpp qualifié nañ waaye actuellement dañuy xool kan mooy jiitu ci li nga xamante ni moom mooy euh, poule L bi ku xam nag suñu gaynde xam nañu pare nañ bu yàgg yàgg Coumba Ndoffène donc tey du yomb. waaw tey moom moo nekk match boo xam ne am naa doon pour njëkkante lii di première place groupe L bi comme ni nga ko waxee soxna Fatima Sénégal kon war a jàmmarloog euh, ñii di waa Burkina Faso ñun en tout Sénégal mi deuxième kon. war jàmmarloog Burkina nga xam ne kon moo jiitoogum ci boobule boobule boobule pool match bi war a am à 19h kon fële ca euh, Mali. muy na kon dans cadre en tout cas cinquième journée bu li nga xam ne moom mooy euh, qualification pour Coupe d'Afrique. Uh-huh. ba nga xam ne kon euh, moo am kon ca Maroc ci deux mille vingt cinq. enjeu bi loolu la ah bi mooy dóor jël li nga xam ne moom mooy première. place yi donc jot naa ne peut être suñu gaynde yi li nga xam ne wane nañ ko ci match yu mujj yi ñàkkul tey bu ñu footballee dinañ mën a en tout cas dóor euh, dinañ mën a dóor bi lee mhm. bi lee match pour nag jël premier fas yéene dem ñi nga xam ne nag ñooy suñu euh, ay naataango yu Sénégal su ñoom nga xam ne dinañ faral sax euh, di def benn onze probable boo xam ne peut être moom lañ yaakaar ne kii di Mhm. entraîneur bi tey moom lay fekk muy Pape Thiaw. Mhm. gardien de but ñu ngi si joxe euh, Edouard Mendy kon ñi nga xam ne daal ñoo nekk Bataille. Mhm. beneen défenseur Kalidou Koulibaly Moussa Niakhaté. Formose Mendy nga xam ne moom mooy El Hadji Malick dee ci milieu terrain bi la nag euh, ñu ne kii di kon Pape Gueye. Euh, Gana Gueye ak ki nga xam ne moom mooy Iliman Ndiaye bu dee ci attaque bi nag kon ñañ njort ne daal moom la euh, kii di Pape Thiaw war a teg bésu tey jii mooy Sadio Mané Ismaïla Sarr ak kii di Nicolas Jackson nga xam ne nag dellu na gannaaw bu moom mu nekk daal match boo xam ne kon euh, soxna Fatima. ak le retour de Krépin Diatta ak Edouard Mendy effectivement Edou Mendy nga xam ne kon sax moom lañ jot ne mooy parte tey ba suba mhm. tey jii seen i ci lii di banc bi kon daal mu Euh, match la boo xam ne kon euh, ñi gane euh, bëgg nañ koo remporter. pour mhm. nag nekk tetu li nga xam ne mooy poule L boobu comme ni nga ko waxee suufati c'est important ku mën loo fen te match bi xam nga loo ci nar a jëlee fekk si leen dóor leen nga fay am